benn doomu Sénégal ngi boo xamante ne nii durant tout le ramadan yére bu ma sol moom moo ko ñaw jox ma ko xaalis joxuma ko dara moom may jàppale ndax fadam moo mu boole ak moom muy abu fashion xale boo xamante ne li muy dagg set na rafet na yére bi ngeen ma gisee koor géeg damaa gën a correct teg ko ci temps kontaan naa ci moom 78 ngay def pour ko ak moom 78 100 20 25 moo ma sañseel moo sañseel fadam te li ngeen gis fii ci kanam yépp ñu koy sol incha allah moom moo ñu koy sañseel dafa am benn message bu mooy wax mooy ñun ay sénégalais lañu. te dafa am ay jëf yu ñaaw yoo xamante ne bu amee ci réew dañ koy ñaawlu. naka la réew mi loo xamante ne su fi am ñu fexe ba indil ñu ko ñu dem jox ñu ko tegal ñu ko ci fi nga xamante ne nii tey ñi dëkk jàmm jam ñaajo dañ doon jógee dakaar dem jam ñaajo ci 15 minutes ñu dem dagg câble yi nga xamante ne moo nekk ci terre bi yooyu jëf la yu ñaaw doxalul réew. réew buy dox dafa war a am ay ndaw yu exemple ndaw yoo xamante ne ni dañuy dox ci réew ma dox ci luy doxal réew ma mais ndaw yoo xam luy yàq réew ci la ñuy dox dafa am loo xam dafa ñaaw c'est honteux bu fekkente ne ñi def loolu ay sénégalais lañu yàqaloo leen kenn seen alalu bopp ngeen yàq te loolu ngeen yàq defoo leen ko kenn seen bopp ngeen koy def teer boobu daw dawul defoo leen ñu ko de seen bopp ngeen koy def parce que seen yëfu dëkk ngeen yàq seen yëf ngeen yàq dafa am loo xam nag dafa ñaaw bu ay nit nekkee ci réew di xeex ngir jàppale réew ma ngir bëgg réew ma développé da ngeen di dox ci luy développé réew ma kenn bañul yenn yi mais am na yoo xamante ne dafa ñaaw c'est honte kon ñaaw ñaawlu nañ ko trop ñaawlu nañu trop ñu dagg kaabulu teer bi te am na yeneen yoo xamante ni ñi ngi ci réew mi ay infrastructure la nañ ko sàmmal suñu bopp ndax bu ñuy wax développement sa sàmm moo ci njëkk développement sàmm ko moo ci njëkk ndax boo amee mbir da nga koy mën a sàmm ñi ngi tàmm nañu di yàq dañuy toj arène yi dañuy daj chaise yi dañuy def yoo xamante ne dafa ñaaw on de des jeunes on est des sénégalais nañuy wane image bu rafet ci Sénégal ndax tey dama toog di seetaan benn télévision tubaab ñu wane ci ne Sénégal seen terre dañoo dagg seen câble yi. ña ñoo ko def ay sénégalais en tant que sénégalais damaa rus te télévision bi wane loolu du télévision Sénégal. am na loo xam gàcce la du suñu ndamu réew. nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax. Serekantamba na na ñi ni ñu jàpp non moom bu ñu leen bàyyeet nañ leen tëj. nañ leen tëj jàpp nañ leen bu dee ñoom la ñoo ko def nañ leen tëj. parce que bu ñuy wax cité imbécile fa la ñu yóbbu woon kaabal yi. xoolal loolu pour bëgg ko jaay. yaa ngi dégg parce que dafa am loo xam ne Mourou Mbaye boo demee sax ay suspect la parce maanaam président bi jiite réew mi moom dafay nekk à président bi day dem infrastructure yi ñun ñoo koy jëriñoo ñoo fi des ah, ay sabotage kontaan nañu sax ñoo xamante ne yoo jóg pour saboter président non ñooñu ay yàqkat lañu lañu ay malfrat lañ ay malfaiteur lañ nañ leen jàpp ñu tëj leen faux et de faux mais ah, mais mais Modou Mbaye boycotté leen. Modou Mbaye <laughs> directeur bi li mu dafa garaaw de Kajoor production le 22 Kajoor production mooy ñëw Mama Lamine la ngay tuddee góorandoo yi président drapeau bu mag. Maama Lamine ak Garga 2 waaw te góor ndooy drapeau bu am solo drapeau góor ndooy daf ci am waaw nga wax léegi nii waxaat ko ci arène nationale waaw ñu bàyyi yi bu ñu ñëwee mhm. nañu seetaan ci jàmm ak salaam mhm. chaise boo fa yàq dimanche bi dimanche bi toog boo demaatee sa doom koo toog loolu suñu patrimoine national dañ ko xam beneen bi beneen bi ñuy jeexalee mooy le 15 mhm. dañuy nekk arène national mais dañuy nekk Iba Mar Diop les sages ñoom ñoo ko tëj les sages nag bu ñu ko waxee le président est là mm. tëjal jotaay bi ni ma koy tëjee moom mooy bon les sages dañu të tëgg euh, drapeau sargal Matar Ba euh, teg mise cinq millions ñu war ko bëri ci trois catégories léger mi-lourd ak ak lourd yi dañ ne nag jóge nañu drapeau chef de l'État am na ay mbir yoo xamante ne ils n'ont pas été récompensés mm-hmm. amuñu fa ay ndam et moo tax ñu kale woon bi la date du 15 collé juste une semaine après le drapeau chef ok pour ñu mën a ñoom. Hmm. défulé foofu gagné fa dara. Hmm. parce que neexul ngay préparer drapeau chef